asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent sallallahu ñu ngi nuyu njiitu kër gi di ko ñaanal ñu ngi nuyu aussi njiitu réew mi ko ñaanal ñu ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye si ak soxnaam ak njaboot gi ñu ngi nuyu le commissaire Damba maa ngi nuyu aussi le colonel Moussa Fall des eaux et forêts di ko ziar bu baax a baax a baax di ko wax ne nam naa la ñu ngi nuyu Ousmane Cissé bu mine et géologie di nuyu Soxna Gagne Sy Gueye maa ngi nuyu Cheikh Thiaw ak Soxna Aminata Gueye di nuyu Momadou Ndiaye bu amoon cinq yal na yàlla dolli jàmm ak dal si réew mi tey dañu ñëw si les maux de gorge put guy metti les maux de gorge ndax bari nañu ñu si envoyé question léeg-léeg euh, baat nag saa yu mettee dafa nekk signe avant-coureur de maladie mën na annoncer grippe buy waaj ñëw mun na annoncer am soj mën na annoncer jeune comme mën na annoncer une attaque virale même coono nu ko indi muy pour metti nooy def nga pasti pasti pasti waaw li ci njëkk digle mooy pasti xam nga pasti ñu ko garab gii ñuy wax xottu muy eucalyptus moom nga di gis muy pasti te moom dafa bari lu mën faj si attaque viral ak bactérienne yooyu moom mooy xotu butéel bi ngeen gis pasti kon sooy màcc past yooyu mën na la dimbali soo amee limon jël ndox nugal ko pajal si limon def si kuddulem naan si put wow buy metti nga jël tuuti ndox nugal ko def si tuuti xorom seeyal ko di ko gal galax di ko ñaar gargariser nga baax na si di naan aussi ndox bu bëri ndax nay tax pour gi dégager ndax léeg-léeg irritation bu pour gi wooyee trop na indi loolu léeg booy naan nag dinay dindi wàññi irritation yooyu pour gi di am tey su sa put dee metti fexeel sa bakkan bañ a fatt bu fattee da koy ficcat bi wutal xobu ngi gis di ko suuroo baaxal ko di ko suuroo wala nga wut diw xabat sax di ko dugal si bakkan yi pour ubbi bakkan yi ndax loolu dana gën a dimbali put googu mën a mën a féex li nga war a moytu nag mooy meew boo amee problème put guy metti moom dangay ngay moytu meew ndax meew mi day yokk mucus bi te mucus boobu buy génn day yokk jafe-jafe yi muy lor yooyu ngay génn yuri tax yooyu xorom polle dañu ko ciy digle boo amee xorom polle muy cul de Jove ma ngay wut sa loxo ba mu fees nga baxal ko si litre ndox di ko naan par kaasu attaaya boo ndekkee boo añee boole si kàttanu yàlla dafa lay dimbali si méttitu pour pour googu te nga changé brosse à dents aussi léeg-léeg brosse yi dafay boo ko yàggee utilisé dafay dem ba fay virus yi ak bactérie dañ ci accumulé wu microbe yi soo ko dee brosse foo mën na leen di infection yi mel noonu ngay changé brosse wut brosse bees te it booy tëdd nga relever sa bopp laal mu gën a kawe tànk yi ndax bari nañuy am ay problème pour dañu bari lu ñuy lekk mel ni njóobee ni rek boo lekkee ba sa biir fees nga tëdd jaaxaan tàllal loxo yi bu ko defee di am remontée gastrique acide yooyu yéeg nag dafay lakk pour bu yàggee dana indi léeg-léeg irritation boo yeewoo kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu ñëw si question yi ñu di tey ku njëkki daal nee na dafa gént gis am ñax muy tàkk waaw a ah, balay yàgg day tu vivras un événement heureux di nga am daal mbetteel gu neex événement bu neex boo war a dund balay yàgg si kàttanu yàlla kii nee na dafa am carie dentaire carie mooy bëñ yooyu di xaw a xonk soppeeku ñu koy wax kari léeg-léeg mu ba ñu bënnee day am kari boobu xobu màngoo si gën a gaaw wutal xobu mango nga baax ko di ko galax di ko di ko raxas gémmiñ ngi baax na ku mujj gi daal moom jabet lay laaj lu si baax nañu ko tegtal ñaar bu njëkk bi bantu nebedaay la maanaam nebedaay saab-saab boo jëlee garab gi car bi ngay dagg wut si juróomi bant yi tolloog baaraam nga wut Evian def si ndox ba mu fees tàbbal si juróomi bant yi bàyyi ko si bu commencé am une heure de temps nga commencé si naan genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boole soo suy jeex ngay dol ndox boo demee ba gis ni nag bant yi nuur na si biir ndox mi nga xam ne amatul njëriñ nga dindi ko defaat yeneen bant si kàttan yàlla day génn waaye jógee na bu yàggul nee ma daal ginnaaw yàlla looloo dimbali jabaram dañ ko waroon opéré suukaram yéeg mais looloo wàcc suukar bañ ko mën ko opéré beneen bi mooy xobu laurier juróom-ñaari xobu laurier ngay baxal si litre ndox juróom min nga segg di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boole si kàttan yàlla suukar si dana ñu leen tàggu fii leen jox rendez-vous suñu émission